leen wax na tey jii nag dañu am lu metti loo xam ne dafa dal si mboolem koo xam ne yaa ngi si dëkk bi nekk sénégalais képp ku fi nekk rek naqare na la neexul kenn ndax xam nga liggéey ba mu àgg am si yaakaar ñu ñëw jël ko ñëpp xam ne ne dafa metti te tey loolu la ñu def te teguñu ko lenn si loolu ëpp ñu doole te amuñu ku ñu jàppale ñun tey daanaka suñu kër 6 heures du matin la ñu yeey biñ ñëwee daanaka mboolem lu fa nekkoon muy bagage wala muy xaalis ba téléphone yi nga xam ne ni yoroon nañ ko dañ ko jëlaale si loo xam ne tegul fenn dama yaakaar ne nit bu demee ba dugg si kër di jël lu ni tere la war a fekk mu lu ni tere mu jël ko mais di jël ba jël loo xam ne lu nit ki jëfandikoo la jël ay dàllam jël ay yërëm jël téléphone am jël xaalisam jël ay bagaasam loolu metti na trop bi des gis nga galeria bi mu ngi nii biñ duggee si biir ay tubaab a ngi fi ñëpp a ngi fi mais biñ duggee euh, sénégalais rek lañ cité jël mboolem bagage boo xam ne ni moo fi nekkoon képp koo xam ne yaa ngi woon si galeria bi di fi daan sa doole amul lenn loo xam ne dese nga ko jël nañ lépp mu nekk loo xam ne metti na trop te amuñu kenn ku nu wàllu sonn nan depuis boobu ba nëgën ñu ngi koy jooy ba nëgën ni kenn waxul kenn interview li xam nga lii dara gënu ko metti waaw ñi ngi ñaan nag képp koo xam ne nii autorité nga nekk Sénégal ñu commencé ko si président bi ba ki si gën nekk ki si gën a ndaw ki si gën a tuut ñu ngi leen di ñaan di leen wax sonn nan fii ñu nekk waaw te ñëpp xam na ne développement réew immigré moo ko yore ñi ne fii xale yu ndaw ne fi di daan seen doole sonn lool di xëy 6 heures du sedd bi muy metti ñuy muñ doo lekk doon naan loo am yóbbante sa njaboot te loo yaakaar ñu jël ko yóbbu ko ñëpp xam na ne loolu mettina na kon nag ñu ngi leen di waaw di sàkkuwaat ñaan si yéen waaw waaw waaw du du suñu kër la dugg ndax euh, biñ ko xoolee am na juróomi kër sénégalais yoo xam ne bu ci nekk euh, le mii moom noonu lañ def euh, biñ demee dañ si dugg mbooleem loo xam ne nii moo fa nekkoon muy lu baax moom sa yëre yi ngay sol dañ koy jël say daal dañ koy jël làmb say poos boo yoree xaas ñu jël ko sa téléphone bi ngay wuyoo dañ koy nangu jël ko yóbbu ko dèjà xam nga loolu metti na waaw waaw loolu moom loolu nag moo nu gën a jaaxal parce que ñun dong nekkuñu fi di liggéey te dañuy fay ay droit comme comme ñi fi nekk ñëpp waaw te te lii métti dañuy fay ay droit comme ñëpp galeria bi nii ñu dugg nii sénégalais yi dong lañ jël seen i bagage ay santen de place mi ngi si biir ñëpp a ngi fi nationalité yëpp ñu ngi fi mais boo xoolee euh, sénégalais képp lañ dugg si te leen jël seen i bagage bàyyiwul leen dara dara waaw te biñ fi gëjee matut une semaine mboolem li fi nekkoon jël nañ ko ah, mu nekk tiis boo xam ne nag na trop te naqari nañu lool nag wax dëgg yàlla te fenn fu ñu ko jooyee waaw ñu ngi sàkku nag képp koo xam ni dégg nga ko wala nga am foo xam ni mën ngaa fexe mu àgg fa ñu ngi lay ñaan nga dimbale nu ngir yàlla mu àgg fa parce que sonn nan taay nañ si dëkk bi métti na trop wax dëgg yàlla ñu bàyyi sunu réew ñoo fii di daan doole ngir sunu réew te lépp luñ am ba yaakaar ko ba ko yóbban sunu réew ñu jël fokkati ko ëpp ñu doole nangu ko te amuñu fenn fu ñu ko jooyee wax dëgg yàlla sonn nan quoi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw taxawaayu association bi nag wax dëgg yàlla man bi ma xëyee woo naa Arfan mu ne ma yabal naa fa avocat yi laaj ma foo dëkk ma expliqué ko mais gis na fii ba léegi gisaguñ leen ñu ngi leen di xaar nag ba xam ñoom bu ñu ñëwee fu nu teg ñu tega fa mais nag li yàgg na fi te mujjul fenn tamit waxuma yaakaar ne association bi seen doole bari na ci li wala ñu mën ci dara parce que lii yàgg na fi 2012 ba léegi ñu ngi ko fiy def mais fi mu toll nii nag dafa yokk nii ñu koy defee métti na trop vraiment. loolu moo ñu jaaxal ñun ñëpp ëpp na 4000 sénégale ñun ñooy wax naan 4000 sénégalais ëpp na ko ba nëgë ni du kenn koo xam ne nii autorité la wala mu nekk si nguur koo xam ne ñëw na taxawunu wala mu nemmeekunu ba ci passeport bi gën a tuuti sax nga xam ne nii mënul ñàkk si doomu aadama soo ko ñàkkee pour nga am ko problème la wax dëgg yàlla ñoom moom wax dëgg yàlla taxaw wunu xoolu nunu seetu nunu gëstu wunu sonn nañ si dëkk bi trop wax dëgg yàlla te ñëpp xam na nag immigré mënul ñàkk waaw immigré mënul ñàkk sonn nañ vraiment wax

poto yu bon o dana boo lala ma toj sa loxo rek Filmer lépp. Dana

Villanan, ¿no? Ah, Eso no tiene marca, no tiene marca, no tiene marca.